asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateurs yi internet yi maa ngi leen di ziare ah di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen tey nag ñu ngi ci aljuma di bis bu sell ñuy ziare ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm eh, di ko sàkku si yéen ah di wax ne yàlla na yàlla def jàmm si àddina bi rawatina suñu mi nu nekk nga xam ne amu lu dul amunu lu dul moom muy Sénégal ah li may def nag tey comme ajuma la ma bàyyi leen ngeen dem seetaan te déglu yëglikaay yi liñ ñu indil tey nag di jéeglu ndax daan ngeen fi gis seen rakk seen soppe seen xarit di suma rakk di suma xarit muy ramatulaay mais bon tey ñëwul xam naa ne des fois nag nit day am ay empêchement loolu la demee mais dama leen di bàyyi ngeen dem di seetaan te déglu yëglikaay ñu dikkaat ak yéen ci plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah vendredi 10 décembre 2021 dañuy wax ci yëglikaay sunu lamb la ñuy xëy doore ko. yëglikaay bi di sunu làmb nag tey xëtamu njëkk moom la xëy gën ci afis bokk na ci ka nga xam ne nii moom moo de papa sow papa sow moo xam ne nag yëglikaay bi daal papa daal mu nga xëy daal di dëggal te itam di gën a sax ca la mu waxoon mais nee na moom boo bëggee dégg dëgg daal du moom moo def la fa am maanaam fotewul moom la mu doon def daal yoon moo ko ko may tey itam mbër mu ne am nga droit joxe sa ay sarax Papa Sow tey loolu la xëy wax ko ci sunu làmb moo tax nag yëglikaay bi ñëw na maanaam xam le ne daal CNG fi mu nekk nii nag moom moo war a àtte wala boog papa moo wax lu mel ne ki noonu te itam nag yemu ca pelantam daal fi mu nekk nii déposé na ko fa ko déposé nag du kenn ko dul ca procureur de la république mel ni kon daal diggante Papa Sow ak Siteu boo bëggee dégg-dégg donte combat ba xalaatoon na ñu bëre mu jeex ca dimanche waaye daa mel ni combat ba tey continuer ndax nag buñ demee ci Equivox TV daa mel ni ki loola lan fay fekk ndax Papa Sow démb woote woon na ñenn ci presse bi waxtaan ak ñoom ci digganteem ak Siteu Papa daal lawoñ la mu ñaawlu mooy taxawaayu ña nga xam ne nii ñoom ñoo di waa kër Siteu yi itam rawatina nag ka koy tëggal muy jili sec du sama ay wax nag Papa Sow moo ko wax ci micro ña nga xam ne nii ñoroon presse ba nekkoon démb ca këram yemu ca keneen koo xam ne ni Papa Sow ñaawlu na ab taxawaayam moo di moo di yëglekaay bi daal wala boog Papa Sow xam le na ba tey ci Equivox su daal ni jàpp na ne Modou mbay na mu waxee waru ne waxe ndax nag daa wax ay wax yoo xam ne bokkul te itam nag daa jàpp ne sax Modou Mbaye maanaam buñ koy rus way juram bokk na ci kon na jéem a sàmm liggéeyam mu rafet du sama ay wax Papa Sow moo ko wax ka mu jàpp ne liggéeyam moom rafetal na ko wala ay waxam teg na ko ci yoon te itam waxul ngir intérêt intérêt général la ko tax di wax mooy Tafa Gueye du samay wax ba tey Papa Sow moo continuer di wax ca Equivox TV ba tey ci mbir mooma nag bu nu continuer ka nga xam ne nag moom la waroon a bëreel muy Siteu moom Papa Sow Siteu mooma nag am na mbër moo xam ne daal nee na pare na ngir bëre ak moom muy jén kayre jén daal nee na lu mu am Siteu moo ko ko gënal te itam nag sampal na ko am ndën nee na bu paree rek man pare naa taxaw fas yéene defante ak moom ba mu saf leneen keneen koo xam ne ni moom taxaw na ba taxawal ab combat moom moo di Fallou Ndiaye Fallou Ndiaye borom bool production daal wala boog borom Ndiaye production moom Fallou daal fisale na combat bi war a ko ci diggante Mor Kankang ma ngeen xam mu nekk école de Cheikh Mbaba ak Iba Jam ñaajo wala dab daan ma nekk fa nga xam ne moo di ca jam ñaajo yëgli kay ba xëy tey ñëw dina ko wax am na combat boo xam ne moom dimanche lay am war a dox ci diggante ka nga xam ne ni moom moo di Baba Camara ak ka nga xam ne ni moom moo di wala boog diggante mbul ak ogis Baba Camara moo xëy dayal di jàngat boobu kombaat ak itam la nga xam ne ni daal moom la ca gis ca wàllum combat ba bu yàggee ku mu gën a arrangé ak koo xam ne arrangé wul ba tey bu nu continuer dugg ca biir yëglikaay ba nga xam ne moo di sunu làmb bu nu ko ubbee nag dem ca yeneen paas yi nga xam ne ni mooy juróomeelu xët ba yëglikaay ba daal ña nga xam ne nii ñoom ñooy association ba nga xam ne ñoo yor école de lutte daal ñoom itam daje nañu ba génne ab communiqué ba ñu daje nag ba pare la ñu ñaawlu daal mooy violence ba nga xam ne nii mooy am ci làmb ji te itam nag la ñuy condamné daal mooy jëf jooja te itam ñaawlu nañ ko lool moo tax nag yemuñu ca ñaawlu ga indi nañ ay solution teg ko yoo xam ne jàpp nañ ne bu buñ ca jaaree lamb ji maanaam loolu ñu cay faral di gis des fois mën naa ñàkk wala boog sax mënti naa bañ a am ñeneen loo xam ne ni wala beneen mbir boo xam ne nii lamb ju mag la joo xam ne nii daal fi mu nekk nii ñëpp ngay wax naan wala ñëpp boog ñu ngay xalaat naan xaaj na arène nationale am xaaju fa muy diggante Modou Lo ak Ama Baldé mu mel ni ki nag yëglikaay bi daal ci xalima ak Abdoulaye Dembélé ka mu xëy tay sampal maanaam ndënd ba moo di état bi état bi daal Dembélé ne na leen daal bu ngeen bëggee dégg-dégg defiru nag sécurité ci état u Sénégal ci combat Ama de bii ak Modou Lo lan koy xame wala ca lanoo koy xaar yëgli kaay baa xëy tey wax lu nu mel ni ki noonu ci jàngatub Abdoulaye Dembélé kenn koo xam ne ni moom la muy xaar te di ko waajal mooy le 25 décembre muy jamaïcain yëgli kaay bi nee daal jamaïcain daal en route jëm te la nga xam ne ni moo di le 25 décembre yëgli kaay ba moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni noonu leneen loo xam ne ni moom ab face to face la war a am tey ca Iba Mar Diop diggante Bombardier ak Balla Gaye numéro 2 yëglikaay bi xëy na tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu mais mbir moo xam ne nii yëglikaay ba ñëw na ci muy koo xam ne daal wala ñaar ñoo xam ne dañ leen a fas yéene d'accord muy ka nga xam ne nii moo di Malick Ngom di ab arbitre nga xam ne nii moo di moon nekkoon fi mbër yëglikaay bi nag nga na fan club bu Boucar Ndour ba nga xam ne nii nag ñoom ñooy tëgg làmb ja fa nga xam ne nii moom moo di ca jaxaaw si le 18 décembre daal ñoo fas yéenee décoré Malick Ngom ak ka nga xam ne moo di moon un mel ni ki nag Bukar mooma sax nag yëgle ba woon nañ ko ba tey ca tuus ya ak sunu làmbam mu toog mu mel ni ki nag moom Bukar daal boo bëggee dégg-dégg daal sunu làmb safoo na ko waaye nag loolu mooy daal xeru tëb sàkket da cay daru ndax nag koy wax ci làmb di ca liggéey waa làmb wala boog làmb tax ñu xam la defe naa ne kon boo gisee journal buy bind ci làmb rawatina bu mel ni sunu làmb saa yoo xëyee am nga droit visiter ko xool xibaar ya ndax itam nag loolu mooy li war a nekk jërë ngeen jëf kon dégg ngeen tey yëglikaay li ñu xëy indil sunu làmb Equivox TV ak bépp yëglikaay bu yëngu ci làmb tey xibaar yi yi ñu indil bu ñu ko njëkkee sunu làmb nag sunu làmb tey li gën a fës moo dil ñu ko mooy Papa Sow mi nga xam ne ni maanaam mu ngay continuer di dëggal waaw ci biir sunu làmb ak ñàkk tooñam woo xam ne ni jàpp na ne tooñu ko ah, parce que moom daa jàpp ne la mu doon def ci droit am la nekkoon waaw parce que wàccul yoon te itam la ko yoon santoon dong la doon def maanaam mbër la ngemm na war a bëri si war a joxe ay saraxam di ko joxe ji kon ne na moom fotewul tey suba waxi noppi mu mel ni ki nag kon moom loola daal la jàpp waaye foofu tamit li am solo daal mooy loo ci mën a dégg daal ah bés ba moom yàqu na ba mu yàqu nag metti na lool lool métti na ci ñoom athlètes yi waroon a bëri te bëri wuñu waaye métti na ci rawatina ci amateurs yi daggoon seen ay biie ñëw di seetaan bés ba yàqu métti na ci ñoom trop ñu jëndoon seen ay code tamit toog seen ay kër war ko seetaan métti na ci ñoom lool lool lool mais nag a ah, olof ne na bu ndox tuuroo an baax fa des ñu ne déedéet nañu rootiwaat kon li ñu def mooy rootiwaat waaye mbir moom ba tey Papa Sow daa mel ni ah euh, jàpp nañ ne daal fi mu nekk nii kon CNG moom moo war a tranché comme déglu na leen ba pare waaye mbirum plainte ba moom. mu nga ca ba tey parce que jàpp na ne plainte ba moom am na te déposé nañ ko au niveau du procureur de la république waaw loolu nag ku ñu tooñ te nga jàpp ne wala boog boo jàppee ne dañ laa tooñ parce que xëy na moom jàpp na dañ koo tooñ waa kër Siteu moom jàpp nañ ne tooñuñu yaa ngi dégg mbir mi nag kon fi mu nekk nii procureur moom mooy xool ndax ñoom ñaari pàcc yi kan moo tooñ ku wàcc yoon comme plainte dem na fa procureur de la république xëy na moom dina def enquête am ak ña ko ñam ko sëq ñamu yebal ñu defal ko ko pour mu xam dëgg gi fan la féete waaye loolu lépp man Babacar li ma ciy wax mooy damay wax ne encore une fois ñun askanu làmb la ñun senegal la réew mi ñoo ko bokk kon li nga xam ne mooy làmb yi ñu bokk war na war na euh, war nañu xool lu nga xam ne nun koy defar ba mu rafet la lii nga xam ne nii sax moo ci war a am man war a man Babacar gënalu ma parce que plainte ak procureur yépp donte mbir li am nag metti na metti na lool foo ko takk weesu na ko waxtaan itam defe naa mën na am suñu diggante ñu jéem a rafetoo parce que Siteu yéenewul Papa Sow li ko dal Papa Sow yéenewul Siteu li ko dal dal Siteu kon defe naa ne erreur am na dagaa am na ñu xool waaye tamit ku mu neex am nga droit kat man damaa jàpp ne dañ maa tooñ kon damay dem fa nga xam ne nii fa mu la fa la ma war a àtte ka nga xam ne moom nga jàpp ne moo la tooñ tamit bu jàppee ne tooñu la itam moom da lay toog di la déglu ba buñ ko ca wooye mbir moom tam buñ ci continuer daa mel ni papa itam démb gis ngeen image yi ci Equivox TV woote woon na gis ngeen ko Lutte TV ak yeneen site internet yu yëngutu ci làmb ay Kewel Info ay euh, Bawol TV mu mel ni moom ba mu woote démb këram euh, mbir mu nga xam ne ni moom la ñuy wax ca la continuer ba tey parce que ba tey mu ngay ñaawlu taxawaay ba ma jàpp ne moom la waa Kër si Siteu amee papa soo wa ko wax moom daa jàpp ne boobu taxawaay du taxawaay bu rafet du taxawaay bu image bi du image bu rafet parce que daa jàpp ne moom ba muy dugg ci stade bi sax pour mu dugg fa problème la parce que xeer yi ñu ko doon sànn ak yooyu yooyu yëpp ay waxu papa la mu ngi ci biir Equivox TV mu nekk mbir yoo xam ne daal li ñu li ñu ci xam mooy wala li ñu ciy wax mooy rek ah ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi dafa naa ne sport tamit nañu jàpp ne sport sport la war a fa war a boole mais war a tàqale sport dama yaa xam ne suñ ko defee ba jóge ci lañ ca war a seq mooy rek jàmm donte am nay enjeu xëccoo dina ci am mais rafet ba da ciy gën a am solo waaw di wax que ni rek muy jàmm gën muy parcelle parce que boo demee parcelle danga nga fay fekk ay nit yoo xam ne ni seen mbokk yaa nga jàmm gën nga dem jàmm gën fekk fa ay nit yoo xam ne seen mbokk yaa nga parcelle kon te itam Sénégal noonu la bindoo parce que euh, lépp ci région de Dakar la ne Sénégal ci boppam sax moom mel lan mel noonu kon loolu mooy li nga xam ne moom lañ ciy wax di ñaan rek jàmm mujj ci ñun loolu la ñuy ñaan am nañ ñaan loolu parce que li tax mooy li am am na ah itam kon am nañ droit ñun ñaan ci yàlla mu mujj ci donte terewul moom papa am na décision bu mu jël mook estafam waaw loolu tamit ay droit am la euh, ba tey bu ñu continuer ci mbir moomu Ariels xam ngeen ne benn kuréel la bu nekk ci làmb di benn association boo xam ne nii moom moo regroupé ñi nga xam ne ñii mooy école écrit yi waaw ñoom tamit kon daan nañu mbir yooyu amoon dimanche ñaawlu nañ ko ba fa ñaawlu yem waaye ñoom yemuñu si ñaawlu yem dañu proposé ay solution et puis wax nañ dëgg parce que mbir su amee hmm, Mansour defe naa bu jafe amee ba pare ah nga xam ne lii am na léegi li des mooy leçon yoo ci war a tirer pour nga mën a indi ay solution pour ëllëg loolu bañ am ñoom loolu la ñu def kon defe naa Ariel seen communiqué bu ñu génne tamit am na solo lool lool lool lool waaw euh, defe naa ne ñoom tamit ñu nekk ci mbir mi lañ di tàggat mbir yi di leen entraîné di leen teg ci yoon ba tey bu ñu continuer si mbir moomu euh, wala boog duñu ko sori parce que li tax mooy ki nga xam ne moom moo doon Siteu mooy Siteu boog waroon bëri ak Papa Sow yàlla dogal bareetuñu moom Siteu moomu Diène Kaïré xëy na tey ne na pare na pour bëre ak moom waaw loolu Diène Kaïré moo xëy tey wax ko ci suñu làmba waaw mu mel ni kon ah ci Halima bakkan ah loolu la bëgg bon dañuy bàyyi nag xool ba xam fan la wane di mu jëkk ay bëtam parce que Siteu ak Diène bu ko Siteu nangoo buñ bëree war na mën a neex waaye nag comme li ma fi waxoon rek laay waxaat parce que dafay am combat yoo xam ne day dépendre ci beneen adversaire bi pour mu taxaw taxawaay bi combat Diène ak Siteu actuellement pour mu taxaw day dépendre ci waaw loolu moom mooy mooy li am parce que bon euh, li ko gën a wane mooy cest à dafa nekk benn mbër boo xam ne nii wax dëgg yàlla ci làmb bu ñu waxee rek te yàlla tax phénomène la si làmba ah par rapport public bi koy topp ak ni muy waaw mooy loolu waaye nag Diène Kaïré nag na xale boo xam ne tamit ku daan Quench ci làmb bëri ki laa ku nii la Quench bëri ki démb nga daan du Anta bañ la ci làmb fi mu nekk nii dina jafe waaye nag comme li ma waxoon laay waxat rek soit bi moom nekk nii bu Siteu nangu woon tey tey tey léegi combat bi taxaw waaye nag est-ce que Siteu dina nangu foofu la mbir mi nekk waaw ba tey bu nu continuer ci mbir moomu ba tey duñ ko sori ba tey mbirum sécurité mu ñu doon wax léegi ak arène nationale mu mel ni kii ci Xalima eh, Dembélé Abdoulaye Dembélé ñu koy nuyu moom tamit nee na tey eh, defi bi nga xam ne ni mooy défi sécurité bi état bi eh, moom lañ ci xaar ci comba Modou Ama waaw combat Modou Ama moom ñëpp a ngi ciy wax euh, pour suuf problème te xam naa ne incha allahu rabbi ko Nicolaï moom ku ne xam na ne euh, yàgg na relever ay def yi defe naa bés bu ñu tëgg na ko ndax enjeu bi amoon ci ball gay numéro de ak euh, Modou seen premier combat enjeu bu toll noon moo amaat ci combat bii rek combat booba moo lay joxaat combat Ama ak Modou ba tey kon xam naa ne Luc la mu defoon ba réussir bés booba incha allahu bi am naa ne dina xam naa ne dina ko defaat pour réussir le 13 mars ñu ko koy ñaanal bu baax a baax a baax parce que tamit lamb la boo xam ne ñëpp ko bëgg lamb bu am enjeu la ñaari mbëri bëgg ko lool ba ama nekk roi des arènes rek la gis te jàpp nañ ci combat bi la ko mën a nekk te effectivement fii la ko mën a nekk ndax ki muy bëreel moom mooy roi des arènes muy Modou Lo Modou bëggul premier sorteem mu ñàkk ci roi de arènes am moom itam loolu du ko bëgg la muy bëgg mooy continuer gérer la nga xam ne moom moo di corona muy combat boo xam ne bu bëri c'est bu bëri enjeu la waaye man damay wax benn wax boo xam ne parce que souvent damay dégg man su gars naan arène nationale bi wóorut ni ñu ko tabaxee baaxul nangam sangam waruñu fa bëri arène nationale bu ñu fa bëreewul fu ñuy bëree arène nationale lañ tabaxal pour làmba pour làmba la def arène nationale moom sax démb jub ay sees kon encore une fois ñun ñoo war a adapté arène nationale bi pour mën di ko consommer parce que defaruñu ko defaruñu defaruñu arène pour ñeneen ay nit ay doomu aadama lañ koy defaral kon doomu aadama yooyu ñoom ñoo war a consommer arène bi mu nekk bisu boo xam ne vraiment dañ ko war a sàmm aar ko di ko utiliser parce que mën nañ fa bëri ah si ta euh, Ama Baldé ak Modou Lo xaj nañ fa man Babacar man maa wax loolu ça dépend nag ci ñoom ñi fay ñëw maanaam ñi fay ñëw comportement yi ñuy amee loolu mooy wax ji parce arène bay coppe ay place mais Demba Diop bi ko football bi di toj maanaam bañ fay xeex ba ay nit di fa moor bañ koy tëj waa Ligue 1 bi Ligue professionnelle bi bi loolu am seen final boobu Demba Diop boo xoolee ci wàllu pelouse moo gën a yaatu arène nationale loolu moom am na waaye pour kera xeex am na fa miir daanu turbine ba ñu ay nit dee fa kon dama ne mbir mi du affaire u arène bi dafa fii yaatu nag fii xat naag xaj na fii affaire bi problème mu nit ñi la ñun ñooy soigné sunu ay jikko suñu comportement suñu ay doxalin ba fu ñu dugal ñu war fa mën a nekk nekkeen bi nga xam ne moom la nit war a nekkee foofu ba bu ñu fa jógee dara du fa ñaaw dara du fa yàqu man gis-gis boobu laa amee ama ak Modou encore une fois te itam gëm naa ne ma du ko def fenn fu dul foofu waaw loolu mooy mooy li mooy li nekk waaw euh, dañ ñaan yàlla yegg sa ak jàmm rek waaw euh, Fallou Ndiaye tamit xëy na taxawal combat bu neex war a dox ci diggante moor Kankan ak ki nga xam ne moom moo di euh, dab daan bu jam ñaajo muy combat boo xam ne bu neex la ndax Mor Kang Kang ku ne gis na lim def boo yëmbal bu yàggul euh, Mor euh, ki nga xam ne moom moo di euh, dab daan tamit bu yàggul daan na mbaytin boo kon defe naan ñoom ñaar ñëpp ci ay victoire lañ toog war a bëri muy combat bu nar a neex kon Mor Kang tamit na xam ne ah jël nga ndax kii nga xam ne nii moom moo di dab mii ku ko xeet li ñu naan xal la ku ko xeeb mu lakk sa dàgga moom nag xale nga boo xam ne yaa ngi ci sa yoon yaa ngi ci lancé bu baax macha allah am na solo waaw fàllu moo def loolu leneen loo xam ne tamit war na am mbuur mbuur ci euh, weekend bi wala ci dimanche ji diggante mbul ak Auguste Babacar Camara moom mu ngay jàng jàngat combat bi waaw mu nga xëy di ca wax muy moo xam ne lu am am solo la leneen loo xam ne tamit euh, dañ koy wax léegi muy diggante mu doog ama pour le 25 décembre ndax jamaïcain ku ne xam na ni le 25 moo tëg bàyyi ma ñoon xoyantaan ñaari mbër yi nag war fa jàkkaarloo waaw Modou ak Ama foofu tamit ñu ngi laa waat appel di wax que nit ñi nañuy ñëw ci arène bi ak intention bu baax ñëw ngir supporter seen mbër yi ñëw ngir seetaan làmb après bu jeexee ku nekk ñibbi ñi nga xam ne nag ay quelques personnes lañ di rax di jéem a yàq di salteel ñooñu moom dañ leen di bàyyi ak sécurité ba ndax ñooñu Babacar mënu leen a régler keneen mënu leen régler ñooñu sécurité leen mën a régler te incha allah rabbi xam na ne sécurité ba dina doy ñu ñaanal jamaykee mu réussir loolu leneen loo xam gis nañ ko ci journal bi mu neex ñu lool muy euh, Malick Ngom mu ñu war a décorer moom ak moon le 18 décembre fa nga xam ne moom moo di ca jaxaaw sin euh, fans club Boucar Ndour di teg fa mise 1 million muy muy lu am am solo fa fas yéene sargal Ablaye Ndour bi nga xam ne moom mooy ministre nekk ci papa ci Boucar loolu di lu am solo kon defe naa loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax baax a baax face to face tey Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier Iba Mar loolu tamit loo xam ne lu a neex la war a jaare nag ci match mbalax maani ak rappeurs yi kon defe naa loolu daal tey moo fi dikkoon ci yëglekaay yi Euh, di wax que ni rek encore une fois euh, lu ñuy wax duñ tàyyi di ko wax parce que comme dañuy wax ay nit di ñu bàyyi xel donte ni ñuy bàyyi xel sax bëriwul waaye nu mu mën di toog rek ay doomu aadama ak ñuy bàyyi xel bu doon kenn la sax te di doomu aadama day nekk ci ñun plaisir kon dañuy wax encore une fois rek nañu jéem a rafetal soow mi duggee ko marché Sénégal ñoo ko bokk xëccoo yi donte mën na am mais nañ ko def ci fair play ci xëccu bu mën a doon nag moo xam xëccu politique bi la moo xam xëccoo sport bi la moo xam bu mu ci mën a doon ñu di ko def ci cadre fair play parce que loolu mooy nit bu nite sa adversaire war ngeen a mën a taxaw waxtaan lëngoo bokk toog lekk xam nga partage lu bari te pourtant adversité day nekk seen diggante bu ngeen waree nag jàmmaarloo ngeen jàkkaarloo ci côté adversité mais jàkkaarloo boo xam ne bu ngi jeexee jeex na comme na ko Boy Niang doon waxee tafaatin tamit démb def na open press am waa loolu tamit ñu bàyyi ci xel def na ko Iba Mar Diop mu nekkoon open press bu neex macha allah mbay lu mu woy fa euh, supporter bi yëpp wuyu si ko mu mel ni kon ñoom tamit ñu ngi waaj pour le 19 décembre loolu tamit jar na bàyyi xel booy ñang mardi lay def ca Pékin kon defe naa combat boobu tamit ñu ngi ñaan yàlla parce que après Siteu Papa Sow mooy combat bu mag buy njëkk dugg siwaat waat parce que dimanche bi ñu jëm bu dellu see la ñu ngi ñaan tamit mu réussir parce que amateurs yi soxla nañ loolu bi ci des mooy dimanche sunu papa Xaadim Sam moo tëgg ca arène nationale kéwél bu bawal ak ki nga moo di ñàkk jariñu bu caaro yi kon mbokk yi loolu la woon ah di ñaanal ñëpp jàmm di balu ñëpp àq di wax que ni Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm di remercier Mansour mu nekkoon si caméra bi ak montage bi Habib di wax que ni bon tey la aljuma balu naa ñëpp àq bal ñëpp àq di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu waa lamb yëpp di nuyu waa Sénégal yëpp encore une fois jërëjëf.